jaam wóolu naa la xam nga sama waay nga tailleur bu mat baa ngi wóor naa la mbel góor sa kër maam ba fa demee képp ku fay ndaan naan yaa koy ñawal caab bande sa kër maam la la lay la man bëgg na la bàyyaale caab moo boor naa la Baye Ali waaw mais Baye Ali xanaa koor gi dana jàpp. yàlla boo fay li ñu dana xool sa sa yére baa ngi lonku sax. dina lonku kay doomu bàyyi sama sago ba sama kër nee la bàyyil daw yi ngir yàlla bàyyil daw yi. waaye bàyyi àll xam nga man samay mbir taf taf la samay mbir cag cag la est-ce fi nekk di kii quoi ana ana sa waay. ba nga nee waay ba nga nee di daraw. waaw eh. Abrahima tamit nag ku la. bas <laughs> eh, eh, ma saaga ma dugal la kur waaye jógal ñu waaye yow waaye jógal waaye ngay nelaw xaw a wóoroo. xanaa ko moom ordinaire la baaxul waaye booy jógal waay yi. alors. waaye jógal sax ñu dem mu gaaw. voilà ma la waroon ah, waaye da ngay plané quoi wala ok. baal koor gi métti na de. waaw waaw booy. waaw ah, ah, man de yàlla tey moom wax salu ma ci kanam booy ñu dem mu gaaw fii. eh ci kanam léegi léegi. xam. ak xam. may ma tuuti rek. kii laa doon seet Baye Baye Aliou Fatou xaw ma Baye Aliou Fatou Thiam yaa fa Thiam. soxna si yow eh bu ma reetaan loo kat. ah man ministre de la santé Baye Aliou Baye Aliou Thiam nga am Baye Aliou Fatou Ngom. pour man de la ma boole yow. ministre de la santé et des tissus. loolu xanaa Macky koy teg waxul nit ñi dara. xanaa sama benn xarit incha allah maa da lay dee. léegi dama kaa jëloon. waaw pour mu ñawlu ko xam nga néew yi te néew yi ma damaa bëgg sama néew gën a feres daal bu demee ay nawlem kër kër bañ kaa yab ah nga néew dafa sensible. kon nag dama baal bu dee affaire bi na jéemoon ngir yàlla. lii dama ni maa ne yow yaay ñëw ay ñawu ko bëgg ma mu raw kenn ah ay moromam di ko ñeent léegi ni muy demee. man kay néew bi ma ci jaawal koy dee noo koy def ñaaw wala dëgg dëgg perkal. kon kon nañ bàyyi nañ nga ñawal man ñawal ma rob bu baax. damaa am. waaw bu dee yow sax tànn na ma rawal la ñawal la roog. sama noonu daf maa tuddee xew te faw ma sàjj sàjjin ma xoolal ñëw bu bon ñëw bu ànd ak dignité bu ànd ak personnalité ñëw bu vulgaire. <laughs> loolu eh! ñëw bu vulgaire ñëwal ma mu loolu laa bëgg. pardon laa mel su ma wax damay bu baax ñëwal ma ma séen. waaw ma jël ñëwal sama daal yi ma jël la. jël ma ma si taawal yaa tamit nag yaa ngi yéex de kaay kaay eh soxna si. dama lay seetal si yow tam baal rek ma seetal sama bopp nag li tam neexul nag place jàmbur. dëgg la damaa eh xaaral eh ba sama mbaax na yow tam nga bàyyi li ngay def da ngaa ñawlu si yemal ci yemu ñawlu ma ñëwee ñawal la. sama benn noonu. ah ponkal nga Masya allah. Fataam ba. jël ma yàlla bind taxaw ma jël la mesure nga dem. soxna si jël ma mesure. soxna si ni dama la ci bëgg si. seen déedéet man yow laa ñëw danga may may rek ma jëlal la normal yow tam. ok jëlal ma mesure wala gaaw yaa ngi yéex de. soxna taxaw benn plan mu mën ok sama verre nag gis ma. waaw baax li baax na waaw. jëlal ma mesure. Eh, bu ma song dañoo ne ci koor defal nii rek. gaawal. soobee barke biir bi. fa la ñuy commencé waaye jëluma si ginnaaw. déedéet foog mu am kii moo tax yi laa bëgg man ma jël lii. jërëjëf waaw jërëjëf tamit nag. soxna si yow tam damaa woote magum jëm laa du ma caaxaan nag. bu dee da ngay jël machine nga wax mboo ko jël nga ma. xoolal ne ma du mu dugal ay tailleur yu baax ba pare di ñëw si nga may ñëw sa ñëw yi dégg mais bu ma lay nga jox ma rek sa tam ma ñëw la normal yow neexoo waxal ah. bu ma ko ba mu yuuxoo damay tiit da ngay da ngay jël sama fit bi waxal naa ko gaawal jëlal commencé sama bopp bi commencé sama bopp bi. xanaa nangu ngay commencé sama bopp bi. bisu. dama am jabar. waaw ñaata mel la bopp bi ñaata dama am soxna. bopp bi ñaata mel la. dama am sa jabar ji sama papa lay génnal de ah, man xam naa lépp bàyyi bàyyi awa ngom de man bàyyi awa ngom maa. tudd ma bàyyi awa ngom bàyyi àll caam laa tudd bu ma waxati bàyyi awa ngom. soxla soxla. mu soxla soxla. soxla. man ma tudd ma bind. ma de 15 kilos laay posé. yow yaa ngi causé deux cent quatre-vingt-dix grammes moytu maa dem gaawal jëlal ma monsieur. man sonn naa trop ñaw bi nag lu ko jar. sama tànk yi te tos na lu ma ci jël ñaw bi lu muy def ci te na li. ok xanaa bàyyi nag eh. ah neex ngaa biisu yow. waaw jëlal. yow eh, kii baa duma song. soo yow sama fes yi. sama taat yi dafa rëy de jëlal sama fes jëlal. baal ma approprié la soxna baal ma approprié la. moo gën de léegi xoolal xam nga la ñaw bi. ne fii laa ko dencoon wallaay. xam nga si xaalis nu kenn du ko def foofu nag. ah saa ci dañoo bëri. xam nga ay samba booy yu mel balaa maa ngi génn ma tisi bi. la bu ko de bu tisi moo daax sa tisi jëndal ma tissu bi soxla si dama yàkkam di soxla ma bo waaw jëndal ma tissu bi ma ñawal la. mi ngi nii li 45 mètres la du des. lan mooy tissu bi. ah. yow ma li ma tissu li ma tissu bi di li nga may ñawal. soxna si xanaa da ngay defar lu kaaf fii du ministère bu dee da ngaa am kaaf. nga jéem a dem ci ministère bu mi ngi fi mu defar la kaaf. yaa ngi may bëgg a tooñ nag dégg nga yaa ngi yàq sama wóoru koor du ma wóor ba heure bi nga naan ma ay kaaf lii soo bëggee nga ñëwal ma ko bul ma jooy la bul ma jooy la laa nga naan ma am sori am sori dégg nga am sori dégg nga sa kanam bu rokka gi mel ni souterrain rek ah souterrain même sa sa sa tànk yi di mel ni kilo mburu rek lay laa kilo mburu da nga torop affiché waayo nga ma ñëwal li waaw bal ma bal ma ma ne ñun ñun ñu def bokk ñu société on est de la société ñëwal ma li am ko jaawal la ak bay def lii ñëwal ma grand moom ñëwee ko ak caas ak loxo nag léegi leen laa bëgg mu pare maa ngi ni toog di la xaar. non non non ñaw bi moom day jël temps doo ko mën a xaar ba pare fi mu ne nii vingt mille laa ko ñëw vingt mille francs dafa bari demul beneen tëyal ndax damaa seer ñoom damaa seer ñoom dafa vingt mille francs la ñoom waaw damaa seer ñoom mooy ñaata mooy ñeenti junni boo ko mënul nga dem seetu beneen tëyal damaa seer ñoom te boole naqar de laa ci boole ndax seer ñoom waaw ñeenti junni chaque jour deux cent lay ndekk dama xool beneen tëyal su ko dajale waa am am dinaa la ko dinaa la ko léegi maa ngi dem dégg ka laa ko def si bu paree naa la béppé. bu paree da ngaa neex dërën nag. yow amul benn ma gaañ. waaw incha allah merci beaucoup. xam nga biñ bi ma noté sax. man man damay bëgg a jommeem damay bëgg a dafa am kuñ fi yebal ah. man fàtte naa sax ba ba awoon kan oui ba ba yow bàyyi la sànq bàyyi woon ko bu ma waxati loolu kakuma ci de ragaluma la de bàyyi la caam laa tudd. maa ngi jégalu baax waaw yow. sama jàmm waaw yow maa ngi jégalu baax amee Kolo Thiam maa ngi jégalu baax amee Kolo Thiam. waaw soxna si naa jot ak yow de. bàyyi Alé Thiam laa tudd tudd ma bàyyi amul Kolo Thiam. d' accord bàyyi Alé Thiam laa tudd. waaw voilà. bàyyi Pata Thiam léegi ma su may sànni à 10h 10h dinaa ko jot dégg nga dégg nga nga jàppale ma si incha bu coono tamit ne paxal paax. <laughs> bu ma jooy dimbali ma waaw noppi naa ma ma jàpp noppi naa. noppi waaw maa ngi daa ko doon foofu. doo sa bi affiche waa.

waaye ale atma dum fuy nga am yéen yéen yéen yéen da ngeen naan réew wala waaye yéen moto bi ngeen dugal fii ci biir pra pour lan lakk tàngoo ñoo dox bu fii nii bàyyi la sa affaire du fuy nee naa ko wàccal si buntu bu mbay mu ne ma dugal ma ba ci biir naaj bi dafa tàng te dafa sonn kon du ngeen ma tam ca ca ca nan nga ko dugalee ci ci ok ci bu ma ఎంత వాళ్ళని నాకు ఎంత వాళ్ళని నాకు ఇప్పుడు ఇప్పుడు yow xamoo sa bopp xam nga ñàkk xam sa bopp tax ngay jël moto gàddu ko naan ko indil ma ba fii di jaay wanew yow war ngaa wanew lan laay wanew maa ngi ñëw léegi xaaral ma dugg fi ñëwaat. niet すごい。 ndeng sa maam lay lay lay la man bëgg naa la bàyyi la ca